maa ngi tudd Papa Badié Ngom di directeur des études des cours privés la réussite alpha nekk fii ci Géejawaay euh, sorewul dara lycée Limamou Laye école yi dañu tëj si diiru ñetti semaine muy école yu ndaw yi école maternelle ba université ngir ñoom éviter moytu lépp loo xam ne dana indi ay jafe-jafe ci wàllu woowu waaw euh, dañuy euh, tënku ci li nga xam ni président de la république jël na ko comme mesure tëj école yi waaye di wax rek ni mesure la bu ñëw ak euh, surprise ak mbetteel te oh, comme olof dafa wax ni lépp loola bett man la xam nga ni forcément il faut mu am ay ay ay dysfonctionnement par rapport ak liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko euh, ci ci biir école privée yi. non absolument forcément il faut mu am impact parce que xam nga euh, euh, école privée c'est une c'est une opération économique bu fekkente ni yow da nga am ay prévision de recette prévision de recette yooyu nga tënk ko ci. période boo xam ni élèves yi ñoo fi dañ fiy nekk war a indi seen fay yow it nga war a fay jàngalekat yi war a fay luyaas war a fay leneen ak leneen ak leneen bu ni borom njiitum réew mi dafa wax ni na élèves yi dong yi toog seeni kër ñoom it ah, bu ci amee parent yoo xam ne dañoo mel ni man di ay tukulóor dañuy dañuy toog seeni kër ah bañ bañ bañ a ñëw yàlla dogal na ñun dëgg la c'est vrai euh, on a de très bons rapports avec nos enseignants mais nag du tax tamit ñun ñu ñu ñu ñu nangu leen a teg loo xam ni war ñu leen ko teg parce que loolu dafay indi ay ay ay réeroo mais ñoo ngi naxante ak ñoom am na ci ñoo xam ni mesure bi mu amee ñoom seen boobu ñoo ñu wax ni de toutes les façons euh, bu ñu buñ ci tiit parce que ñoom xalaat nañu déjà euh, benn dispositif de renforcement boo xam ni suñu dellu si waatee rek incha allah ñoom dinañ ko mettre en ba xale yi incha allah euh, ñu ànd ak ñoom ci défi de résultat bi nga xam ne école bi euh, ŋàbb na ko. jaaxle nañu jaaxlewuñ parce que xam nga euh, comme ni ñun niñ koy xalaate toujours di leen ko wax dongo bi ñetti mbir ñoo ko seq élève bi la école bi. kër gi ak mbedd bi su su kër gi ak école bi jëlee seen wàll ci xale bi mbedd bi du ci mën a jot mais su fekkee kër gi ak mbedd bi dañoo jël seen wàll école bi du ci mën a jot et et et vice versa donc tey ñun suñu combat mooy fexe ba kër gi ak école bi euh, euh, boof ci kaw xale bi ba nga xam ni mbedd bi du ci mën a jotee loolu si suñ ko suñ ko arrivé cela veut dire que ñun am nañu possibilité ànd ak xale bi dëkk mën li nga xam ne moom mooy défi de résultat yi parce que loolu moom mooy enjeu bi parents yi nañu ànd jàppale jàppale école bi téye xale yi ci kër gi waaye bàyyi xel ci ñoom ñu ubbi seeni kaye di mën a nafar ba bu ëllëgee ki si biir lanu jàngoon ak su néew duñ ko fàtte parce que ñaar fukki fan ak benn euh, ay fan la xale bi mën na ci mën na ci mën na ci defaru waaye it mën na cee yàqu parce que euh, euh, loolu su fekkente ni dig-digal boobu euh, parent bi bàyyi na ci xel élève bi suñuy dellu si même bu fekkee dafa am lu ñuy renforcer du bari bu fekkente ni dafa am ay ay ay ay njuumte ak ay dëngte yu jot tabax dugal ci boppam pour ñu réparer ko wala ñu génne ko ci moom du metti trop di remercier bu baax tout l' équipe bi def déplacement ñëw ba Géejawaay di remercier seen directeur général euh, di leen wax ni incha allah euh, ca kaw ca kanam euh, ba yàlla waneel waat ñu ci jàmm ak salaam merci beaucoup.